Jaxa. Damas. waaw ça va bien. kii de xam naa xel bi moo nekk ci yaayam sànq ba tey mu ngi koy laajte rek. nga nam sa yaay tey dinañu dénk dama Ndiaye boo ci fekk ko fi. bon papa au revoir. ciao ciao. waaw nga def. ça va bien. alhamdulilah. loo def fii néegi ci biir. non non non non garaaw yow laa soxla. Magui ngir yàlla madame Guèye laa bëgg gis. c'est urgent. deux minutes kese laa ko soxla ngir yàlla c'est urgent. waaw d'accord dinaa xool nu ma mën a def. jàppale ma rek nu ma si mën a jàppale rek ngir yàlla. amul problème amul problème dinaa wax ak yow. d'accord maa ngi lay déglu. amul benn problème. ok merci. caabi mu la bàyyi kale ci bunt bi kaadan kaadan ma ñëw ma ñëw ma ñëw sàcc ndënd yomb na mais fa nga koy tëggee moo jafe tëj bunt bi prétexte nga jël caabi bàyyi ko ci bunt bi lool mooy boo ñëwee bul dugg ku fi nekk kan moo fi nekk kaadan buusal ku fi nekk duggal nga seet dugal foofu di mbokk rek yow kër dugal rek nga seet kër gaa ngi nii kay. dugal rek nga seet. dugal lii du neen yaa ko tey yaa ko tey. prétexte la nga tëj buntu bi bàyyi ci caabi ji pour bu ma ñëwee du ma dugg prétexte la. yow kër gi damay bàyyi nii buntu kër gi mun a yàmm ni fanaan ni man maa ngi soog a yeewu sangu war a xëy. boo tëjee sa bunt doo rëcc sa caabi da ngaa yor caabi ma yor caabi. waaw mi nga ñëwee dugg nga nag. waaw da ngaa ñëw des ci biti. prétexte la pour nga mën a làq nit ki fii. ay te soo ay leen mais fii nit ku fi nëbëtu dina. kër gaa ngi nii kër gaa ngi nii seetal seetal seetal fu la neex. ah yow lii rek saa la dégg quelque chose. lan table fees dell nii yow koo ndogal démb. démb yàq na ndogu. fii sa kër la xam nga ne naka jekk ndogu nii laa daan demee table ji xam nga dañ ko daan dressé ba mu baax ku ci sa wërsëg ne boo ñëwee lekk. xam nga loolu mais di fat parce que daloo ah da ma doon tendre pièce daal ba xam faama ci koor lañu ne. ñu waxtaan utiliser sa xel. il faut nga ñëw toog parce que sama xel dal non non y' a aucun souci problème. bi ma toll am il faut ma am xel mu dal mu reposer. te mag li koy may yaram mooy li dal xel. lu dal sa xel. merci très bonne question. Hmm. kër gi hmm. ñu monté fi ay caméra surveillance. pour boo tolloo si kër. lu xew ci kër gi nga xam ko. 360 laa lay laa lay monteel nga xam ne sa téléphone. Hmm. à tout moment day am connexion. lu xew ci saal bi nga xam ko. merci lu xew ci waaj wi nga xam ko. lu xew sama néeg nga xam ko. lu xew ci xew ci couloiru kër gi nga xam ko buntu kër gi doo bàyyi dara. ah jub nga jub nga nag. non non non non nañ ko def tey nañ woo Issa seen. ñu woo Issa Issa sa xarit. Issa say bëgg-bëgg soo koy wax ci dal rek ma toppatoo ko nga am ko ci dal. jeex na man ñu xëyee nopp éléphant dafa nekkoon sama xel mais xaw ma fu ku koy jaay. Fama nopp ñaay nga wax. mooy nopp ñaay. Fama fu may jëlee nopp ñaay. séeras. sa ëmb bi dafa yóbbu sama fit yóbbu na sa xel mais dafa yóbbu sam noppu mm. nopp ñaay mm. kii laa doon a gileem lu dagan laa wax de wax ma lu arab loolu kese boo rombee màdd nga jëndam xanaa bëccëg gi moom mer yaa ngi jaay màdd màdd su ma ko rombee mu indi la waaw tol croissant loolu nga bëgg màdd tol croissant caméra de surveillance jeex na loolu mooy looyu loolu nga ma indil tey ah. insha allah dara du ci fanaan ci kàttan yàlla dara du ci fanaan jeex yow li nga bëgg wax ma ko rek mais waxee ma ko xel rek dégg nga baax na kontaan naa kontaan naa sama jëkkër ak mel ni aw sa de. bonjour. bonjour monsieur Fall. madame Guèye va bien. ça va bien toogal. namu naa la. maa la raw. naka liggéey bi. gis nga ko de ñu nii ci kaw. ça va bien ça va bien. j'étais au ma ne xaaral ma def fi tour. ah ok. Euh, conteneur am naa les information Ah, loolu moom c'est une très bonne nouvelle. ah tey moom wute naa keroog. ndax la woon. du dara monsieur liggéey bee bëri rek. yow da nga nëbbu de. non jamais. may nëbbu waay. Ah. sama xarit bi. ça va. comment très bien. merci naka liggéey bi maa ngi nii rek ci kaw. ça va bien. macha allah toujours aussi bien sapé. su ma ñëw fii moom damay waajal sama bopp ndax. moom rek ma fi indi. xam naa loolu. xamante dara ñoruma ci moom rek. monsieur Fall dafa am benn service ma bëggoon nga rendre ma ko. tey moom je suis vraiment désolé je n'ai pas de temps après on se capte mën nga ma woo après. ah defal loolu rek. <laughs> yow sama xarit nga. amul problème pourtant nag maa ngi la amuloon bii xibaar. bi information de taille. information la mais comme na nga yàq. waaw kay na monsieur Fall. waaye taxawal. wax ma xibaar bi lan la. monsieur Fall mel na ne yàlla ngi lay bëgg tàccu de. Hmm. sa ndaw si. Hmm, taay sëy bi neexatul de. xoolal bi dafa yëngu ba dégg naa sax séparation mu ngi ci. kon kay divorce na. monsieur Fall bul yóbbu samay wax ah. waxuma la divorcé séparation mënta weesu kiy dëkk fii keneen ki dëkk fa ca des. ñoom ñaar dëkkatuñu. voilà tur ki jam. waa xam nga li may nëbb xam naa lépp ah <laughs> ah yow doo jigéen bu ñuy naqaral yow doo jigéen bu ñuy toroxal yow jigéen bu ñuy bégal nga. bu faro yombee moom sëgg day jafe. li ngay wax nii moom comprendre ma si dara franchement. visiblement yow bureau bi yow yaa fi nekk ana ñeneen ñi. ñëpp dem nañ. d'ailleurs man mii sax damay ñëw dem nii. mais ça fait l'occasion kon bàyyil ma xaar la ñu wàccandoo comme ça ànd ndogu ji ensemble. monsieur Fall merci beaucoup là moom je suis très liggéey bi wax ko moom non <laughs> mais ndogu bi gën a liggéey bi. d'ailleurs sax. ban jour la conteneur bi di egsi ma ni conteneur bi sax liggéey ndogulee ma ko gënal ah, waaw je peux attendre léegi waxal secrétaire bi mu yónnee ma les dernières facture comme ça mu mën la defal virement bi avant la fin de semaine mais bul fàtte de ndogali moo ma gënal conteneur <laughs> on se reprend. waaw je veux de très jolies fleurs bouquet bu rafet laa bëgg nga defaral ma ok ne quitte pas saa waay cette adresse bi fii lan la. Euh, villa 99 Fandox. villa 99 Fandox noté ok c'est bon c'est parfait ok merci. saa euh, waay. am na ku fi indi ay fleurs c'est pour madame Guèye bu ñëwee nga jox ko ko dégg ah. ay fleurs yi ñu war a jox madame Guèye. waaw waaw waaw. ah waaw d'accord baax na bu ñëwee ah, na. Ah? naka jekk ma ne sama xalaat na xuma. Hmm. ku ñoom ñaar dañu am problème. xanaa nga ñaanal leen yàlla suñu borom jubboolewaat leen. man kay damaa bëgg ñaanal sama bopp. Hmm. ñaanal. man kay daam lu ma la bëggoon a annoncé damaa dugg. waaye Ndour la fi indi liggéey wala kala ngaatu Ndour bëgg naa nga régler sa pecc. cuuj tey xam lekkam yow da nga attan deseeru madame. eh madame ba naa ma ay damay dugg. Eh, eh, gi ma leer ak naaj gi ma loolu la gis moo tax mu duggee rek <laughs> damay dugg maa dugg ba pare indi la résultat fii. kii moom soof mu neex naan fleur yi ñu war a jaar maa dem ki boo xamoon li lay yoon ngay lëfër lëfër yu mel ni ku jóge Éthiopie soof fleur maa dem ki salaamaaleykum maaleykum salaam ah, de waaw Mass yow mbaa jàmm la bi min bi passé na tëddiw ma di la xaar yaay dama liggéey woon te sax Mass pense ba danga gàddaayoon ndax li nga ma laaj ndax looy wut ci kër ga yow loolu war na la. non non yaay booy liggéey bee xawoon bari rek loolu rek moo tax ma guddee dem. daawoo ko def di te liggéey jàmm la woon. waaw liggéey jàmm la woon. bi ma lay woo lii riir ci téléphone bi dafa mel ne danga génn Ndakaaru. non si si génnoon na Dakar. lépp ci liggéey bi la woon. damay bañ rek la dal raasin rek dal bu seen jabar demee séminaire rek ngeen dem rendez-vous Petite Côte loolu rek laa lay ragal. yaay ma xamee moom si dox lu ñàkk ful la. yaa fi tudd dox lu ñàkk ful. non non liggéey ñibbi sama kër la la am. mais defoo ko moo tax mook la defoo ko. mais liggéey bi mu téye baax na. Hmm. Hmm. <laughs> madame. waaw ça va bien ah, fleur bii lañ dafa indi léegi nii. wuyu hmm? ku fi andeeti fleur. Hmm. bul ko jël. d'accord ah, ok ok merci. damaa sax mujjee rus ah te noonu la fa yàggee di jaabante dugg ci oto bi ñëwaat eh, déglu ko déglu ko au nga décroché ay appel même boo toog ak moom nga wuyu ko sax mu wax la. awma lu may wax moom sax sama décision dama ko jël ba pare. mais du noonu il faut ngeen communiquer toi aussi jàpp si rekk. s'il te plaît. est-ce que duñu changer wax tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. ok. yaay. magi yaa ngi toog. maa ngi nii de di féexlu bu baax sax. kay noonu baax na ci yaay bëggoon naa ñu waxtaan. waxtaanu jàmm. sama xarit jëkkër ji da koo bëgg a gis nanguwul jël ay appelam nangu koo gis nangu koo dégg bu ma bëgg bu fi ñëwee sax au moins nga bàyyi ko mu toog déglu ko loolu daal laa lay ñaan yow mi yaay ñëw di ko lijjanti ndax mu toog déglu ko ak mu ñàkk toog déglu ko mag yow mënoo lijjanti sa problème ah su bëggutee gis jëkkër man maa koy wax ne ko danga koy gis man maa koy wax duma ko ko wax <laughs> ndax dafa am la moom waaye yaay yaay sëyu xale mag yi ñoo ci jàpp ah dimbali ma rek bu ñëwee bëgg dugg ci kër gi bàyyi ko mu dugg ñëw toog na ko déglu rek. xam nga da ne mag fii nag gisoo fi mag ndax man du ma mag. ah waaw man duma ma mag. kon jàpp ma ci sëyu kenn waaw. yow man yow nan laa lay jure nga ma xool rek iñaane ma pour yow magi fóotaloo ma paase loo ma xoolal balee loo ma raxasaloo ma ah defaloo ma lenn ba lenn doolee jeex. kii yàlla indi ko muy sama ñaq bootaay sëggale ma ko mu may toggal di ma yàqal hmm. gis nga ni ma mel ah gisoo ni ma belli hmm. ah gisoo ni ma tagale saa musóor hmm. di lekk ba suur di naan ba màndi tëdd di fi xal man mi fi yàgg moom mosuma fee def dara nga fi defut def yi ma doon jox dara baaxu ci ñaaw na de ba nuppi waaw ah, dafa ñaaw ba nuppi waaw du nii ah, baax na lànk naa may sama yoon ci say kii kii am fulla xale bii dañ foo yar dafa am fulla xam na ne benn góor du la rey juróom fukk ak ñett ci góor suuli la mu am fulla toog toogaayam ah xale yi léegi dañoo am personnalité de ku leen ko duutu rek ñu roqin la ko maa la ko wax